ci yonentam bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu ñu mayee ñu ñëw ci waxtu wi ñëw fii vote si si jàmm ak salaam euh, jàpp ne Sénégal loolu rek la mérité jàmm ak salaam boo leen ko seetloo sax temps bi tey dafa clément xëy na yàlla day ñëw ak ay ngëneelam parce que loolu la yàlla na ma ci Sénégal nit ñi def li ñu war a def ci fulla ak fayda mais def ko ci jàmm def ko ci salaam ngir njëriñu askan wi yëpp donc ñu ngi sant yàlla on voit que nag nit ñi génn guñu bu baax j'ai l'impression mais damay lancer appel aussi wax population yi nañu génn ñëw voter massivement ci bureau de vote yi parce que aussi seen ëllëg la seen ëllëgu doom la seen ëllëgu njaboot la nation nag boo ci nekkee dafa am ay waxtu ya nga xamante ne dafa am ay responsabilités yoo xamante ne da nga ko war a jël bu buggee réclamer ay droit say devoir da nga koy accomplir donc di demander population bi ñu génn ñëw mën a wote dugg ci centre de vote yi massivement pour que 18 heures ñu mën a arrêter élection yi pour nit ñi mën a nekk si jàmm ak salaam. parce que ñu ci doon tiit lu bëri xëy na amul xëy na am na ñu doon yee jéem a yee fitna mais yàlla mi dara teewul fitna googu matul a egg masul eggul yàlla arrêté na ko fu mu ko war a arrêté ñun biñ ci nekkee ba léegi jàmm ak salaam rek la ñuy woote. di wax nit ñi nañu ñëw voter si jàmm ak salaam ñibbiwaat seen kër si jàmm ak salaam fépp fu ñu xam ne buñ fa demee nit ñi nañu fa indil ay tolof tolof demuñu fa fexe nañu ba egguñu fa parce que mënoo bugg jóg nga bugg liggéey sa réew bugg indi fitna bugg indi ay yàquteef ba pare ne yow da nga bugg jël sa réew parce que booy laaj mbir suñ la ko yàqalee bés buñ la ko joxee it balaa ngaa commencé defar da ngay nekk di defaraat ba pare doo ko commencé defar jamono ji ñu toll moom si sama gis-gis moom li ñu war a xaar si député Sénégal je crois que ñëpp xam nañ ko c'est-à-dire que xam nga Montesquieu bi muy wax di wax te séparation des pouvoirs Montesquieu dafa wax exécutif ne législatif ne judiciaire c'est-à-dire bu déggee Montesquieu tënkee ko noonu ci tubaab ci nasaraan Montesquieu dafa doon bugg a xamal nit ñi ne soo leen jëlee mbir ngeen dénk ko exécutif population bi am na droit jëlaat mbir législatif bi dénk ko ñeneen amaat droit jëlaat judiciaire bi dénk ko ñeneen parce que loolu mooy tax équilibre de pouvoir bi am ci dëkk parce que kenn du ëppal ci li ngay def parce que ku si nekk sa morom mën na la contrôler loolu moo ci ëpp solo.